yëpp yëpp waaw man la Awa Sall maa ngi dëkk si ruq bu sew bi 29 angle 10 Médina on demande de waaw depuis démb daal taw bi bu mu commencé ba léegi one est là ci suba ba léegi ñu ngi nii mënuñu def dara on peut rien faire on demande de aux autorités s'il vous plaît aidez-nous aidez-nous s'il vous très fatigué ñu ngi nii ci ndox bi ñu ngi nii ñu biir kër gaa ngi ñu fees dell on peut rien faire même dormir dans nos chambres on pas looyu partout baa ngi ñu fees del del del soo leen ñu mënee dimbali daal dina baax lool yónnee ñu pompe wala leneen dimbali leen ñu ñu nii gis ngeen ndox baa ngi nii bari ba bëgg a dee ndox maa ngi nii gis nga yii yépp seddaloo gis nga ñu ngi nii ñu ngi nii amuñu fu ñu tëdd am ñu def dara on peut rien faire rien du tout